mënul jàll. mais dañ leen amnistie maanaam dama déggoo mu ne dama ne la ñii fi sàcc pendent douze ans ngeen topp alalu réew mi di ko jël di def seeni i poos. ñu ne deetawaay ngeen créé fi ay problème bu ay nit dee si ngeen ne loolu dañu koy jël suul. loolu mënul nekk loolu dama déggoo ma de dama ne la loolu dañu koy tegaat ci table ji. parce que loolu. xanaa da ngeen di démissionné yéen après ñun organiser waat ay élections déggoo ma de. dama ne ne loolu dañ koy tegaat ci taable ji parce que peuple bi moo ko demandé. peuple bi moom mooy justiciable bi moom moo ko demandé donc il faut ñu tegaat ko ci taable yi donc ñu atte loolu. parce que mënoo toog pendant douze ans di jël alalu réew mi. di ko def si say poche ñu ñu lay fayloo impôt ngeen duñu ñu fay le problème problème mu journaliste yi ngay gis nii. les le le les les les de presse. mais loolu mooy seen problème véritable problème bi mooy dañu leen indil. Euh, dañ dañ leen indil notification. ñu war a fay ay impôts yoo xam ne dañ ne président bi fi nekkoon daf leen ko baal. Mhm. mais loolu nag moo tax. ñu commencé nag di di indi ay problème ma ne leen affaire bi. mais loolu fépp lay am nañu fay do nañu fay sont des sénégalais ne sont pas des étrangers. non déggoo moom fépp nañ koy baale des fois baykat bi sax dañ koy baal. waaw mais euh, fan la ko teg pour baale ko. mais parce que sont des sénégalais yi nga xam ne le Sénégal est en crise. non adduna bi dafa nekk en crise c'est dur pour pour noonu. waaw xanaa kii baale et puis sont des acteurs démocrates et. baale moom moo crisal xanaa pendant douze ans nga yor réew mi bu paree réew mi dafa nekk en crise baal yaa ngi baale impôt yi impôts yooyu war a suqali réew mi. parce que 60 pour cent du budget du waral ngeen ne yéen mënu leen a wàññi ceeb ak diwlin parce que moom leen ceeb ak diwlin yéen a ko yokk maanaam tey le euh, en fait la cherté coût de la vie bi. barki démb la courant bi yokk léegi ma menuisier kii courant baa ngi coupé ba tey dama ne de la vie li mu cher ni yëpp ñoom ñoo ko yokk ba fii mënoo nag fekk prix yi fu suufee nga triplé ko en 12 ans. ne nag dans deux mois automatiquement. dañu yéen a ko fi waxoon de président Sonko li mu wax nee na nañu ko déglu ci ay fan am na ay mesures yu ñuy tekk pour baisser le coût de la vie. nañ ko déglu. loolu je loolu je pense loolu loolu lu am solo la. mais yéen ñi nga xam ne pendant 12 ans yéen a xaar projet bi ba mu yegg si ñu soog a dañuy xaaraat projet bi. yéen euh, le PSE. le PSE e, yéen da ngeen fay 3 milliards si suñu xaalis loolu le président wax. 3 milliards ngeen fay. cabinet non dama lay wax loolu c'est dans le débat. loolu dama ne la loolu c'est dans le débat bi la bokk. parce que li ñuy débattre mooy. 3 millions ngeen jël ngeen fekk benn cabinet 3 milliards du moins ngeen fekk benn cabinet bumbuje deux ñu soog ko jot président Sonko mu wax dafa mu ne li nga xam de politique publique mhm. septembre bii di ñëw ñu publier ko teg réew mi ci yoon mu dox mhm. maintenant nag dafa am loo xamante ne il faut euh, am na loo xam ne il faut ñu il faut ñu waxtaan ci mhm. xam nga mooy lan mooy gis nga bu ñu tolloo ci réew mi ci defar ñi ngay gis ñu yàq ñëpp lan la ñuy def jéem a xool entre diggante président Sonko ak président Diomaye te loolu muy benn ñaar non bi bi ci des mooy bi ci des mooy nit ku luubal non dama ne la nit ku luubal waa xaaral dama ne nit ku luubal buggul transparence du dox ci éthique buggul transparence loolu ngeen di bañ mais li ngeen di bañ mënul ñàkk parce que peuple bi moo demandé à ce que réduction des comptes am peuple bi moo demandé à ce que euh, yi fi am torture yi fi am torture fi am da may déglu dama ne torture yi fi am torture yi fi am ñu corriger ko maanaam ñi ko def ñu ñu ñu ñu désigner leen bu paree condamné leen loolu mooy li nga xam ne moom ngeen di bañ a dégg te képp ku doon téye xaalisu askan wi di ko lekk loolu moo fi nekk di ngeen ko gox yi moo tax loolu ngeen di bañ a dégg da ngeen lu débat bu ñu leen dugal ngeen jaxase ko. merci parce que loolu ngeen di bañ a dégg te loolu mooy am. merci merci Youssou donc euh, Maker euh, ci côté boobu démb tamit dégg nañu kii di euh, Ousmane ko mu ngi wax ci wàllum les membres de son gouvernement comme ni ma ko waxee tout à di wax ne képp koo xam ne rek. laale nga laale nga yi waxoo ko. non dina dina nag nga laale nga ci maanaam alalu réew meek wala nin mel yoon dina def liggéeyam bu ñu waree. tëj ñu tëj la bu ñu waree def leneen aussi ñu def leneen euh, ndax jàpp nga ne discours boobu comme ni ko Cheikh Fall waxee c'était le bon discours à tenir par rapport ak aux membres de son gouvernement. Pape nee na pour pour gàttal rek nee na pour nga tënk li nga wax dafa gudd trop maanaam président Sonko daf ne même ñi nga xam ne moo leen fal ñu nekk ci gouvernement bi ku liggéeyul dañ lay daax. moom moo leen fal ku Ah. voilà ku ci luubal. ku ci luubal dañ lay tëj dañ lay jàpp non wax ji il faut mu gàtt. maanaam maanaam wax ji. wax ji bu mu. moo fal ñaar dama ne la danga may déglu dama lay wax ji fu mu gàtt. maanaam ku liggéeyul ñu dàq la parce que liggéey la ñuy def. tra liggéey moo ñu yitteel maanaam ku jël alalu askan wi ñu tëj la. moom il est mais mais Youssou Youssou Youssou de manière